إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa taala ab jullit foo mën a tollu del sant yàlla del wéetal sa borom ñi ngi koy ñaan mu julli ci yonentam ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak njabootam ak ñi koy topp ba ila yawmi diin ñi ngi leen di dénkit ngeen ragal yàlla ngalla way sax leen ci loolu ba baa dee di leen ci fekk mbokk tey jii day xolu jullit ñi un milliard et demi yépp seen xol ma nga jëm ca makka mi ngi noonu makka googee nga xam ni suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na yemmeele na ña fa dëkk ak ña fa dëkkul ñépp képp koo xam ne xalaat ne def fa lu bon mu ne danaa ko teg mbugal mu tar makka googu la suñu boroom dalaloon xaritam ba ibrahim alayhi salaam na ko wool nit ñi ñu jëm ci aj daan jóge ci gox yu bari dikkal la di tudd turu yàlla ca la leen yàlla wërsëgal ci ak jub suñu boroom yàlla subhanahu wa taala itamit sant ko ne ko laa balal sama néeg bii nga xam ni nit ñi bu ñëwee daan ko wër daan fi nekk di julli daan fi nekkit di rukkoo ko sujud mbokk loolu moom mooy makka suñu xutba bi passé waxoon nañu cofeel bi nga xam ne jullit yépp war nañ koo am ci mébétoon di dem makka allahuma yow mi nga xam ne yaa nekk ca yoon ba wala yow doomu jullit ji nga xam ne xam nga ne at makka ci juróomi ponk lislaam yi la waaye buñ la laajoon lan mooy at makka ana lan ngay tontu. xamal ne bokk na la ca gën a tënku mooy aj makka day ñeenti ponk la ponk bu jëkk bi mooy nga armal armal mooy lan mooy jamono bi nga xamee ni nii yu bari day aram ci yow comme bu doon julli fi ngay waxe takbiratul ihram ñaareel ba muy wër kaaba gi ñetteel bi mooy daw safa ak marwa ñeenteel ba moom mooy taxaw arafaat su doon da ngay tënkal nit ki acc loolu nga koy wax muy ñeenti ponk yooyu mooy ponki acc amma bu ma la doon dollil détail yow miy waaj jëm makka xamal ne aj makka am na li nga xam ne mooy ñetti façon acc benn aj gi waa ji moom daa jóg rek di aji ji ndax umra na ay yoon kon aj rek ko yëkkati loolu la ñuy tuddee ifraad am koo xam ne moom dafay jóg boole aj gi ak umra moom la ñuy tudde xiraan moo ko jëkk ki luy seen différence mooy moom fokk day rey waaye kii aj kese ak ki boole aj ak umra ñoo yem li ñuy def amul benn différence seen diggante fi ñu armale ba baa ñuy paree ci aj ga suuf kiy xiraan yéen a aj ak umra fokk mu rey ñetteel bi mooy lu ñu tuddee tamattu tamattu mooy lan mooy ki nga xam ne dafa ñëw umra ba pare ba umraam jeex mu génn ci umra gi sol ay yéreem bàyyi ba bisu at bi ñëw mu doog a solat yére ajam dugg ci at ji loolu mooy at gi gën ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam xiiraan la defoon mooy daa baloon aj ak umra waaye nee na bu ma yëgoon day du ma indi lu may rey kon damay doon def tamattu yéen ñi indiwul lu ñu rey yéen na ngeen def la nga xamee ne nii mooy tamattu boobee ca mooy umra dooga acc allahuma ludul qiraan dana gën ci mag ndax waa ji def qiraan la nga xam ne mooy safa ak marwa benn yoon rek la koy daw ala kulli xaal yow mi nga xam ne yaa ñëw di aji ji makka gàllawaay bu dee ni waa Sénégal la ëpp ci ñoom ñoom Madina la ñuy jëkke kon soo demee Madina xamal ne d'abord la nga fay def yépp dara bokku ci ci aj dara bokk ci ci aj ji donte ne nag ngëneel bu rëy la yow nga ziyaare ji jumaay madina bu la yàlla yóbboo ba madina it ngëneel bu rëy la nga dem ziyaare ji xabru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñaari xalifaam yi tëdd ci wetam di abubakar ak omar ngëneel la it am na place ya fa mën a ziyaar lu mel ni baqiya lu mel ni uhud lu mel ni masjidu quba waaye loolu bokkul ak aj ji dara aj gi mi ngi commencé fa nga génne madina jëm makka am na place bu ñuy tuddee zul xulayfa nga xam ne képp ku jóge madina doo ko romb ca armaloo ci aj wala umra am na yeneen juróomi place yeneen ñeenti place ak boobu muy juróom yu yeneen bi détaillé woon ci gox yi wër makka waaye bu dee yow mi jóge makka madina foofu ngay armale armal boobu moom mooy lan mooy bi nga ñëwee nga sangu léeg-léeg dana jafe foofee kon fa ngay jógee sa hôtel sangul ba pare bu dee góora mu daldi summi mbooli mi yéreem xattaa la muy jiital ca suuf lépp lay summi daldi woddoo ab sir làmbaayoo ak làmbaay ñu koy tudd armal amma bu dee jigéena jigéen lu ko neex sol lenn rek lañ koy tere mooy toilette toilette boo xam ne da ngay attirer attention nit ñi ci yow ci taar waaye jigéen solal grand booboo jilbaaboo robboo la ngay sol daal na muur sa awra yépp la ngay sol na fat la ngay sol bu mu doon loo xam ne luy attirer taar waaye bu dul loolu yow lu la neex solal gannaaw ba nga daal di dem daal di taxaw dana gën a baax bu dee nekk dafa nekk gannaaw ñaari rakk yu julli nga daldi ne labbayk allahuma umra su dee ne yow da nga nar a def tamattu ca mooy da ngay umra ba pare doogu dugg ci aj nga ne yàlla kon maa ngi jëm ci yow ngir umra si su doonte ne ak kese ngay def ca moom la ëpp ci Sénégal yi di def ca mooy buñ jëm Makka ñoom dañuy yéene ak kese suñu ajiyee ba pare doogo umra mbokk loolu day da ngay xam ni depuis ay juróom fukki at ak nangam suñu sénégalais ñi ngi leen koy defloo waaye nag bokkul la gën de jamono yonent bi xamuñu woon loolu la nga xam ne moom la ñu xam ci aj makka mooy da ngay jëkkoo umra doog a aj wala nga aj ak kese wala nga boole aj ak umra amma loolu sénégalais yi def yonent bi alayhi salaam mi ngi ko mayoon yaay Aïcha yaay Aïcha def ko ndax daa ñëw ba Kaaba ga gis baax yonent bi ne ko amul problème defal qiraan ca mooy boole aj ak umra waaye moom mu amoon ñagg-ñaggi xol ca mooy jàpp ne moom umrawul ca la ko booleeg frère am ba Abdourahman ñu génn Makka armalaat doog a ñëw waaye sahabatul kiram ci jamono yonent bi daaw ñu gis kenn koo xam ni daf daan ñëw di jiital ak ba pare di ci doog a teg umra loolu ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee bokk na looy wax mooy labbayk allahuma labbayk mooy wuy si naa la yow sama boroom te maa ngi sax di la wuy si wuy si boobee la ca jiitu mooy maa ngi lay wuy si ci at gii ma ñëw wala aj ak umra bii ma ñëw gannaaw ba nga ne borom bi subhanahu wa taala man day wuy si naa la di la seedelit ni amul kenn koo xam ne yeyoo na ñu koy bokkaaleeg yow mbooli mi xéewal ak mbooli mi cant yow dong la ñeel mbooli mi nguur ak moomeel yow dong la ñeel mbokk lii la ujaaj bi di wax ba baa muy yegg mag su yeggee makka bokk na la muy war a jëkk a ittewoo mooy mu daal di dem wër kaaba ga juróom-ñaari yoon su dee góora day génne la nga xam ne mooy li nga xam ne ni mooy mbaggam a ndey jooram daa di wër kaaba gi ñetti wër yu jëkk yi mu daal di koy waaxu waaxu bu dëgër su yombe ya ca des mu dox normal bu dee jigéen moom day dox normal soo wëree kaaba gi yaa ngi commencé ci xajarul aswad di xeer boobu nga xam ne ñëw na ci riwaaye ne àjjana la jóge doon na baax nga ñëw fóon ko doog a wër waaye loolu un pour cent ñoo ko man léegi wala nga raay ko te loolu jafe na loolu waaye ala kulli xaal ñëwal ba tolloog moom nga commencé say wër wër kaaba gi di ñaan la nga man ci ay ñaan amul benn ñaan particulier buñ ne la ne lii ngay ñaan sopp nañ daal nga boole ca ñaan ya rawatina di ko tëjee rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana wa qina azaba annar waaye bu dul loolu lu la yàlla ubbil ci ñaan dee ko ñaan ba juróom ñaari tuur yi daal di mag su ma tey am na place bu ñuy wax maqaamu ibrahim suñu borom yàlla moo ni taxaw leen foofu ngeen julli fa maqaam ba ci kaaba gi la sësoon ci jamono Omar ibn Khattab lañ ko déplacé soril ko ndax la ci nit ñi doon gaañu soo fa mënee julli ñaari rakka nga julli fa ñaari rakka loolu lu gën la gannaaw ba nga daal di dellusiwaat ci kaaba gi am na fu ñuy tuddee multazam ay mooy diggante buntu kaaba gi ak xajarul aswad nga ñaan fa boo mënoon dem ba turu fay rangoñ sax loolee yiw la gannaaw ba nga daal di dem la nga xam ne nii moom mooy ci zam-zam boo mënee. naan fa ba la nga xamee ni nii yàlla dogal na ko ci yow nga doog a génn nag jëm ci ñetteelu ponk ci ponk nga xam ne at la bu dee na yow da ngay aj kese wala umra ca mooy daw diggante safa ak marwa safa ak marwa yaa ngi commencé ci safa soo ñëwee yéeg daal di jublu kaaba gi am na ay ñaan yu bari yuy ñëw ci téere yi waaye dara lu ca particulier amul amma soo ko mënee jàng ba man ko nag loolu mooy li gën ci yow su ko defee nga daal di fay wàccee jëm fa nga xamee ni nii mooy marwa am na ay màndarga yu ñu def ci diggante bi yoo xam ne boo fa yeggee yow góor danga war a gën a gaawal sab dox ba baa ngay paase ba baa ngay def loolu la nga xam ne mooy juróom-ñaari yoon lii mbokk da ngay gis su doon yow umra rek moo la yëkkati wala nga doon def umra bu jiitu acc muy tamattu su boobaa loolu jeex na lan moo ci des xoolal sa karaw nga wàññi ko bu doon umra rek moo la yëkkati wat ga mooy la gën waaye bu dee diggante aj ak umra la nga xam ne moo gën mooy nga wàññi ndax waajal at ba nga xam ne moo nekk ci gannaaw amma bu dee jigéen a moom lu néew rek lañ ko wax mu dagg ko ci karawam googe lii mbokk moo aju ci ki nga xamee ne nii dafay def tamattu su boobaa day summi ay yéreem mel ne ñépp amma waa ji doon def qiraan walla waa ji nga xam ne da doon def ak kese ku mel noonu day dellu oto dem toog ànd ak armal bi ma armaloon maa ngi lay fàttali ne yow jigéen lu la neex yow ngay sol mais bu dee góor a day ànd ak armal armal boobu nga xam ne bu la neexee changé ko ay yooni yoon gannaaw ba ñu xaar bañ na tey la bisu juróom ñetti ci bisu tabaski cala nag mboole mi doomu aadama yi di àndandoo dem place bu ñuy wax Mina bokk na lay sunna mooy nga dem fa avant tisbaar julli fa tisbaar takkusaan timis gée ak fajar muy juróomi waxtu soo fa toogee ba jant bi fenk nga daal di wàcc jëm fi ñuy tudde Arafat Arafat boobu mooy ñeenteelu ponk ca mooy ponk bi gën a màgg ci at ji soo demee nga fexe julli fa la nga xam ne mooy tisbaar ak takkusaan toog fa di ñaan loo mën ci say ñaan di zikr loo mën ci say zikr doonte ne la ca gën mooy la yonent bi wax laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Arafat la ñuy toog ba jant bi so bu jant bi soo ñu jóge fa wàcc dem place bu ñuy tudde Muzdalifa Muzdalifa mi ngi nekk diggante Arafat ak Muna foofee la ñu war a ah jullee timis ak gée gannaaw ba fanaan fa jullee fa fajar toog fa ba jant bi waaj a fenk ñu doog fa génn allahuma lu dul ña nga xam ne ay jigéen lañu ak mag ya néew doole ñooñu islam may na leen ci digg bu digga ñu daal di fay teel a jóge ñoom ngir xat-xat yay am daal di jëm sànni ji la nga xam ne mooy jamra soo jógee musdalifa jëm muna muna am na fa ñetti jamra ba ñuy sànni mooy jamra boo mujj ba gën a nga xam ne nii moom la ñu tuddee jamratul aqaba nga sànni ko juróom-ñaari xeer soo ko sànni juróom-ñaari xeer su boobaa lan moo la dese mooy da ngay dem daa di rëy sa hëdiyu bu doon te ne yomb na doon te ne quatre-vingt-dix-neuf pour cent léegi nit ñi duñu gis sax seen hëdiyu ay ticket rek ngay jël kon looy def mooy da ngay wattu soo xisee ba wattu islam may na la lépp lu mu araamaloon ci yow nga jëfandikoo ko ba mu des la nga xam ne nag ànd ci li ñuy tudde wàllu sëy soo jógee ci loolu ngay doog a wàcc makka dem nag def tawaaf bi nga xam ne mboolem kuy aj da koy def loolee ñu tudde ko tawaaful ifaada su boobaa boo xisee ba def tawaaf boobu léegi nag même ku àndoon ak soxnaam sax dagan na ko nga doog a faa jóge nag delluwaat fa la ñu tuddee mino foofee ngay dem toog di julli say julli ba suba muy kon fukki fan ak benn ci tabaski nga delluwaat ci jamra ya démb benn jamra rek nga sànni woon tey nag ñetti jamra yépp ngay sànni bu ne juróom-ñaari xeer yu ndaw delluwaat mina sax fa la nga xamee ni nii def say julli ba bisu fukkeel ba ak ñaar nga doog a delluwaat ci jamaraat ya sànni leen bu nekk juróom-ñaari xeer mbokk su boobaa aj makka jeex na sa aj makka jeex na keroog bu doon te ne am nga vol lan moo la dese demal nga daa di wër kaaba ga juróom-ñaari yoon daa di tàggatoo makka daa di dem allahuma lu dul jigéen bi nga xam ne dafa am régal ku mel nii day dañuy gis ne moom islam dana ko may mooy bu nari tarde ay volom islam teggil na ko wër boobee comme jigéen ba nga xam ne dafa nekk ci dereti wasin mbokk lii ab tënk la boo xam ni dañ la koy tënkal yow mi nga xam ne da ngay aji ci waaye itamit di ci bàyyiloo suñu ndaw ñi ngir lu mën a doon lu nekk nga xam ko moo gën nga réere ko kon loolu mbokk ci tënk mooy li ñuy tudde aj mag allahuma yow mi nga xam ne nag yaa génn daal di jëm ca la nga xamee ne nii moom mooy makka ngal la waaye góorgóorlu xam ne yaa ngi jëm ci place bu tedd suñu borom nee na yow mi fa jëm moytul di fa def lenn loo xam ne nii ci wax ju ñaaw la wala jëf ju ñaaw la ngal la waaye gannaa yoon li nga xam ne mooy wéetal sa borom fexeel ba alal ji ngay yóbbu na doon lu lew fexeel ba koo amaloon ay ñagg-ñaggi xol ngal la waaye baaloonte ak moom la nga xam ne moom mooy àq ngal la waaye aj googee it su la yàlla yombalee tànnal ñu baax nga nekk di ànd ak ñoom ngir kay toog ak ko baax du bokk ak ka nga xam ne dafay toog ak kay def naka su dul noonu ngan la waay yóbbaaleel jéggale yaa ngi nar a dëkk ak ñoo xam ne musu leen a daje ñoo xam ne seen âge bokkul mën na am seeni lakk bokkul seen der bokkul kon ak jalgati tooñante mën na faa yomba lool waaye ngan la waay yóbbalul loolu xamal ne yow mi nga xam ne it da ngaa armal rawatina yow góor islam dana la tere ngay jëfandikoo ay parfum ci jamono bi nga xam ne da ngaa armal yow góor ak jigéen amatoo droit laal dara ci sa karaw amatoo droit laal dara ci say we loolu xatta la nga xam ne mooy saabu yu am parfum da nga ko war a moytu amma bu amul parfum dana néewu ci ñu bari dañuy jàpp ne bu ñu xasee ba armal dootuñu sangoo ci mbokk loolu ay njuumte la islam terewul ku armal mu sangoo wax naa ko sànq islam terewul ko armal mu changé la nga xamee ne nii mooy yëre yi muy sol naka noonu it tamit am na ci ay mbir yoo xamee ne nii bariwul lu muy am waaye it islam da koo tere ca mooy ki nekk ci armal warul takk jabar ki nekk ci armal it kenn du ko may jabar naka noonu bu dee jigéen na kenn du ko takk bu dee dafa nekk ca loolee nga xam ne nii mbokk moom mooy armal boobee mbokk lii mooy la nga xam ne mooy lenn ci ki nga xam ne ni dafay dem makka war koo bàyyi xel dara nekkul ci yow mi dem makka nga takk moom dara nekkul ci nga takk jaaro dara nekkul ci nga takk ay lunette dara nekkul nga takk ci ceinture boo xam ne dañ ciy def sa xaalis ak yu demee noonee la gën mooy nga sol ay carax su dee na carax yooyu yombul ci yow nga sol dàll yoo xam ne du muur la nga xam ne mooy say kostel loolee mbokk da ngay gis ne moom la ñuy sant ki nga xam ne moom mooy ujaaj boobee bu dee jigéen sib nañ ci moom muy muur kara muy muur kanamam doonte ne jigéeni Sénégal xëy na lu bari xamuñu loolu waaye ba nekk ci at gi amut amatoo droit di muur sa kanam amatoo droit di sol ay gants allahuma lu dul jamono bi nga xamee ne nii da ngay dajeg ay góori jàmbur loolee soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamono bi ñuy acc heure bu ñuy dajeeg mbooloo dañ daan muur seen kanam yooyee tere nañ la nga muur sa bopp ak loo ci mën a teg ci wàllu ay mbaxaneeg lu mën a doon amaa bu dee ay parasol loolu da ngay gis ni mbokk loolu kenn terewu la ko mbokk da ngay gis ne kon lii mooy benn tarbiya benn tàggat boo xamee ne nii waa ji nekk ci aj makka dana nekk ci loolu doonte ne lii ma leen wax lépp ay jëf la yu ñuy jëf waaye gannaaw loolu am na beneen philosophie beneen xikma bu rëy ci gannaaw jëf yooyee incha allah suñu fi yàlla dajale waatee ci beneen xutba daañu dellu si waat ci loolee nga xamee ne nii ñay dem Makka lañ ko soxlaa ña nga xam ne ñoo toogeet noonu lañ ko soxla ala kulli xaal mbokk lii mooy aj Makka di jébbalu goy jébbalul sa borom jébbalu ga gën a rëy loo xamee ne nii la nga cay sakku mooy lan benn sa borom jéggal la ñaareel ba sa borom tabbal la la nga xam ne mooy aljanna su ko defee semaine bi incha allah Sénégal lu bëri la val yi di commencé di dem ñooñu nga xam ne yàlla tànn na leen ñu nar a dem teewal ñu ca place ba te it nga la way bàyyi leen xel loolu ñay at Makka dañ ñu faa teewal ñun ñëpp yàlla nañu yàlla musal ñuy dund jamono boo xam ne kenn dootul at Makka te wallahi dana am balaa adduna tukki adduna balaa tukki suñu borom dana nattoo nit ñi ñu tasaare kaaba ga suñu borom dana nattoo nit ñi ak makka dootul am kon jamono bi ñu toog ñu gis ñu naan kat nit ñaa ngi aji ji pèlerin yi nekk nañ ay trois millions et trois millions et quelques loolee nañu xam ne ñun lañ fa teewal loolu bu ñu àndul ak ñoom ci suñuy jëmm war nañoo ànd ak ñoom ci suñuy xol ànd ak ñoom ci suñuy ñaan ngir ne yàlla subhanahu wa taala noonu mu leen tànn tànne lépp loo xam ne jagleel na leen ko fa ñu nit ci suñu yéene yàlla jagleel ñu ko yal na yàlla yombalal leen seenu ko acc yal na yàlla wóotu leen ci seenu njaboot yal na yàlla musal leen ci lenn luy tolof tolof yi àdduna ak tolof tolof buy aju ci seen diine yal na yàlla subhanahu wa taala nangul leen mboolem ñi fi des it yal na yàlla sellal seen yéene yal na yàlla wóotal leen ci jëf joo xam ne nii dana gën ci ñoom aj makka ga yal na yàlla defal ñu tawfiq fi dunia wal axira mais wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain